far mais tableau bi nga commencé woon dessiner depuis que euh, ñu commencé yeewu leen bi euh, ci euh, taat bi nga commencé jëm kaw comme quoi moom day juutal ay oeuvre am ay ay oeuvre am plutôt <laughs> <laughs> jeexalee ci kaw quoi <laughs> booy Ibou Cissé ci suuf la yànjee kii nii kan la kii kan la kii kan la kii nii kan la nii kan la kan mooy def photo bi yow xamuloo kii ah <laughs> et puis c'est tellement net ah. c'est net c'est tellement net c'est net c'est net te pareegul quoi. voilà oui c'est comme ça quoi photo bi nii la quoi. ah photo bi kan moo ci nekk nii sax am na ku muy niróol de. am na ku muy niróol de kii de am na ku muy niróol moom. <laughs> on dirait kii ah. de kii du sama ndawas biig see. Mm. ah waaw moom la sax de. <laughs> dama laal du sama ndawas biig si. sa ndawas biig si. kii du sama ndawas biig see <laughs> mais merci Boubou alors maintenant euh, c'est vrai que Italie nga basé wu sànq wax dañu ko beaucoup de euh, dañuy wax euh, ni euh, yow euh, ndaanaan nga fii Sénégal ku bëgg nga defaral ko tableau wala ku la bëgg a gis nu muy def man moom man naa ci face bi laa gën a kiiw quoi mm-hmm. côté bu réseaux sociaux yi moom kii naa ci bu baax ku def buubu euh, design mm. bu espace bu mm. espace encore design mm. euh, am na sama rakk boo xam ne ci tele bi la nekk buubu laa koy woowee de ah ngaa la <laughs> buubu <laughs> euh, te sama tur woowu tamit mooy sama turu dëgg quoi y a beaucoup de personnes yoo ah, xam ne buubu nga tudd si buubu buubu buubu buubu ñaa buubu ñaa jóge ñoom rek ñaa <laughs> ba pare doo ñaa ak ja quoi buubu ñaa ngi ñaa bu ñoom rek buubu ñoom rek <laughs> il est fier ah quand il de ñoom rek day gis yi dafa fier euh, mm-hmm. ñoom rek fii ñoom rek fier quoi ci kaw <laughs> léegi ñu bëgg a yóbbu xam nga micro bi waaw léegi ñoom rek ñu bëgg a yóbbu ci parce que tey buubu bu ñu ko tuddee fu sori tey ñoom rek ah démale way Sénégal démale Guinée oui oui oui ambassadeur ñamar ambassadeur euh, Sénégal ici parce que tey suma ma demee comment dire Italie mhm. Sénégalais lañ lay wax xama nga yooyu noonu moo tax daal mhm. luñ mën di job pour sigil xam nga mhm. euh, sunum réew dañ koy def quoi ba pare itam euh, aussi comment dire maanaam tey mënu ma ko mën a jeune jeune bi ñu doon nekk Italie tim dañ ciy joué bu baax di xeex tim immigré bi maanaam tey duñ ko xeex ci côté bi na nit ñi bu ñu dem quoi mm. mais bu ma sañoon ñëpp dañuy dem quoi mm. mais képp jeune bu am talent nekk euh, en Italie mm. da ngay fexe nga fexe ñëw nekk sax bitim réew sax laa wax nga fexe ñëw quoi Boubama est-ce que euh, nga ñu ko tegal ci mu fees ci écran bi j'adore j'adore j'adore ce pour beaucoup ah def nga Ndeye Nda mhm. Adja Degen Ba bu Youssou Ndour Wally euh, bu mujj bi sax mooy bu Canabaas bi bi ci bi anniversaire tu peux défiler ah Vieux Diouf si tu veux ak ak mi ngi noonu bu Canabaas bi moo nekk nii c'est des dessins bu amee beneen aussi voilà Viviane pour l'instant dama ci crayon bi di defar nii mais am na technique yu bëri yoo xamante ni mais loo gisee wan baay wan la quoi doo ah, jékki-jékki rek nga ah, wan gars yi benn kii nii quoi il faut nga def ah, ndànk ndànk quoi pour nga wan leen technique yi quoi est-ce qu'il y a un numéro de téléphone oui sama numéro de téléphone whatsapp boo nga xamante ni bu leen neexati mën nañu ma woo 78 685 22 15 78 685 22 15 ok joxaatal numéro de téléphone bi Alfayda koy noté 78 685 bravo c'est magnifique merci en tout cas d'être passé. ok ba pare tamit artiste euh, ku mel dama koy béggee ak lu birik tout ko de Léopold Sédar Senghor. ah bii tam c'est magnifique. c'est bu leen di bu may bu may dessiné. damay déglu musique quoi. Ah. waxoon naa ko benn booy aara. Euh, bu axlu birik ma toog ma ne ko man tuma toujours bi may <laughs> déglu may déglu noonu waaw waaw non non bi moom beneen affaire la waaw très bien ba pare tamit ñuy jox opportunité artistes yi comme ça nii seen clip ñu ñëw ñu jël leen ñu ci ñu ciy dessiner parce que ñun dañu am benn benn vision bu ñu am quoi comme li ma wax la ñun dañuy réaliser et tout ça pour ça que ñu jox ñu opportunité ko ci côté boobu même sur scène sax genre live painting artiste bi di jouer Jamel mos na ko def je ah pense ah, ça tu le feras avec lui ah, dee na. rendez-vous bi. def naa numéro bi. allez merci beaucoup Boubou